ko diw loolu la wala moo ñëw nañ ko def mu rafet rek biram kaay yi dimbale ñu nga wax ñu wala boog nga biram kaay nga koo délégué nga mën nañ jóg mën nañ jóg waaw waaw doy waaw wañ acca wañ waaw non yow laay laaj kii président bi la non président ah mooy président bi non président Balla Gaye bi muy bëri Gris Bordeaux bokkoon na ci ñendi woon Balla moo waat waat yu rëy yi eh, ma si laa ngongu lamb mën a soppeeku taala xool ñoo ñuy dugg si ay pa ñi xanaa fan la ñu war a jógee est-ce que taal yow foo dëkk <laughs> man de Jurbel laa dëkk ñi est-ce que jógewuñu kon Jurbel ah man Babacar Jurbel laa dëkk Babacar xool ñaari paa yi léegi damaa defe ne ak yaay ñaan ca butéelam di naan yaay ak yaay dëkk yeeg xam naa leen man ak yaay laa ma xam suñu paa yi dëkk lam yow Talla Ndiaye paa Babacar ñii duñu suñu paa yi dëkk ah, xaaral ma laaj ko ban paa la paa bi fu mu jóge kaay góor gi maa ngi lay oh, foo jógee yow ban dëkk man Fuladu Fuladu waaw Gambie Gambia waaw yaa andi Modou Lo tey waaw day daan Eumeu Sène wala ah dinaa na dinaa daan noo tudd yow Abdoul Balde. de Balde. waaw. mi ngi ko pullo. anga ah, pullo. a ah, tuuti tuuti rek. ah. lakkal ma pullo. ok. am sees a ngonguy dugg si de. ngénte mën naa doon ngénte de ngénte de daan naa am sees. Talla Ndiaye ak takkit day am sees. ah man de damaa yaakaar ngénte dafay am tey. maa ngi seen ay kees tamit xaw ma furuwee ci na xaw ma. man nag damaa xiif. Ah, maa la gën a xiif maa ngi yoroon ndox bala ngaa lekk il faut nga bala ngaa naan il faut nga ba pare. lu nekk banaana wala pomme. mën naa nekk banaana ak pomme de man de lu ñu ma ci jox ma jël bu dee fruit la. mu ñu waa kër Modou Lo nag ñoo ko yor. baaba ngongu. baaba bu ma tooyal baaba. <laughs> xool baaba. <laughs> lii lan la naat wala lan. ala gaa yaa ngay dem de a toppal ma lool bu leen ma xaañ waay ñu ngay dem de waaroo ko eneen seengoong de ñu ñoo di Modou Lo tey de gis nga li mu maye moom teel naa ñëw jël biyem maa ngi lay ziar waaw Babacar maa bëggee baax comme la ziar ñëw nga si lamb ji tey di lamb ju mag combat royal waaw combat bu neex muy Modou ak Eumeu neex din xeex dina gis bëre dinañ gis gis nañ xeex dinañ gis bëri waaw dinañ gis xeex dinañ nga la amoon ci combat jóg gaaw nag bu dee yàgg du passe cinq minutes du passe mais daal yow kon ah ñu bàyyi ngi ñu dem ñu xool ba xam rek ndax waaw que le maire gagne ku daan nam lu gën Sénégal def ko lépp faire pare président groupe baax Massamba Dieye di ko béggee bu baax a baax non violence ça va bien vous préférez c'est ton lutteur préféré. mon lutteur préféré moi c'est ton lutteur préféré sa sa. à entre Modou Lô et Eumeu Sène. Modou Modou <laughs> ngonguy dugg si waarok ñu ngongu ci entrée porte bi laay maa ngi lay bëggee eh, Zors baraa ngi noonu Modou Lo kii moom xam kii moom doon jaay ay rajo may ambulant biir Dakar gëj naa la gis Babacar lu yàgg dëgg la lu mu laal trop mais maa ngi lay siiwut bu baax a baax na gis naa li ngeen def yëpp si làmb ji vraiment li TV moom macha allah si kaw ci kanam rek yaa ngi am jàmm bu baax a baax la tey ku la fi indi tey ëmb ah. waaw am nga yaakaar di nga am ndam waaw naa yaakaar dinañ am ndam ndam lu sedd guy si barke alxuraan loolu daal dañ koy ñaanal. ana rajo yi. fi di dox ba léegi. yaa ngi ci rajo yi. maa ngi ci rajo mais maa ngi ci abima itam aussi. Ah, léegi yaa ngi ci waaw di def lu ko neex. te du leen loolu mënul nekk. lambu démb ji ñoo ko saboté. waaw ñoo ko saboté. CNG nag bu fekkee dañoo topp ci ginnaawam na doxal lu dox. da ngay dem wuti arbitre yu man mais trois arbitre ñoo tiire nit ñi taxaw ñu ne bëriwaat boo demee gis loolu amul. yow da ngaa gis ni jël daa am. am na. Ah. Gora Sock def na def na deux fois deux appui. quatre appui quatre appui moins. ok ok ci yow yow. Filopé tawfeex rek dam rek. maa ngi lay bëggee. maa lay ziar bu baax Babacar di nuyu taalo lamb ju toll nii am Sénégal la combat royal ñu gis ne pay-per-view yaa ko indi si réew mi lan moo tax ñu ne parce que dañoo am écho nekk ci bésu lamb ji tey dimanche ci nga jubóog promoteur bi pour nga war a doxal pay bi. waa dëgg la Babacar tey la ñu déggoo parce que seen affiche point com loolu moom ñëpp xam nañ ko tey la dugg ci combat Modou Lo Eumeu Sène ñoom amoon nañ système yu ñu tëraloon TNT bi ak beneen application bu ñu waroon utiliser muy Wassa léegi nag gis nañ ni ak expérience bu ci seen affiche point com ndax def nañ ko cinq fois def nañ ko cinq fois gis nañ ni seen affiche point ak Buzz Pro mun na leen indil lu bari moo tax ñu wooñu léegi ñun ñu fas yéene récupérer signal bi di ko jàllale aussi ci seen affiche point com. kon ñoom su ma la euh, euh, kii moo tax ñu retourné ñëw ci yow ah non du ma du ma la ci mën a wax dara nag ci loolu mais en tout cas xam naa ne daal ñu ngi doon waxtaan ay weer a ngi nii même ba démb ci guddi waxtaan nañ lu yaatu mais tey ci suba daal lañ d'accord mais ñun tamit suñu xel mosoon nañu gëm ni mosoon nañu jàpp ni pay per view bi dañ ko war a def muy Modou Lo Eumeu Sène parce que def nañ ko juróomi yoon te am nañ expertise bi donc ñun mosul jóg suñu xel ni que làmb ji dañ ko war a def pay per view ñun waa Buzz Pro. est-ce mi yor seen affiche yor ko liggéey que sécurité la maanaam wóor na ci yow loo xam ne tey ci même jour bi lañ la contacter nga ñëw def ko melokaan comme yeneen li fi jàlloon. waaw boo gisee ñun léegi euh, système lu muy gën di dem ñu koy gën a huiler ñuy dugg ci seen affiche bi yoon ñu code parce que dañu ne ku jubóog promoteur bi tey ci suba si code moom mënoo ci dara donc ñun carte bancaire rek la ñuy la ñuy jaayee euh, képp koo xamante ne bëgg nga seetaan combat Modou Lo Eumeu Sène sa carte bancaire wala nga fay paypal ci seen affiche point com 9 euros 99 ñun xam ne ni loolu c'est très sécuritaire nit ñaa ngi fay d'ailleurs di dugg di seetaan te amuñu benn problème ça veut dire que lu Gris 2 nu mu demee woon ba normal Lac de Guiers 2 Boy Niang nu woon ba normal même système bi la ñuy utiliser pour Eumeu Sène ak Lo jërëjëf Babacar. te yéen ñi ah ñun ama seen tey si nga moo ñu andi. Eh, taala waa taay yëkkati leen drapeau bi nii bàyyil mu bàyyil mu waaj. drapeau kàlla. taay si nga. fans club. doomu doomu lay doon de. affaire bi tay si nga la. wan wan lay doon de. naka bërëkat mi nga xam mbër mi ngay gis léegi mbër mi. mbër mi ngay gis incha allah. am na solo mbër mi. Gambian people. Nakamu. Fay. Serekunda. waaw kay. biir Kaam. waaw waaw fépp Gambia. Bakaaw. Gambian people. tey daal ëmb day daan kon su ma leen déggee. dañuy daan. waaw waaw. daan rek. waaw un un la ñuy wax. non sabari laay bañ bëri ñëw daal sama sabari. non Modou Lo benn Ford Tundra la nekk ilalla Modou Lo nguy dugg nekk ci benn Ford woo wax tey da nga ñaxlaf ñu gis la nga sol blouson gannaaw lan la. waaw ah, sama combat tom bi moo ma ko jël. ndeysaan. waaw. Eh, Père Degol maa ngi lay bëggee. maa am nga jàmm. waaw ah, sant yàlla rek. Père tey da ngaa ñëw ak forme de. waaw man si forme laa mos a ñëw. Ah. tey un lay doon wala deux zéro. non un lay doon incha allah. un lay doon waaw si kàttan. combat bi bu yàggee annoncé na leen. waaw waaw loolu ñu gën a annoncé loolu liggéey nañ ko bu yàgg. liggéey ngeen ci liggéey nañu. liggéey nañu loolu. te incha allah tey lii lépp di leer. mu mel ni dañoo gisaat léegi beneen Degol. boo xam ne dafa jëlaat beneen décision ci waa Pikine lan moo la motiver. lépp rek pour boole xale Pikine yëpp ñu nekk benn nekk benn bopp waaw kenn bañ a dugg seen diggante di gërëm presse bi yëpp nag gis nañ taxawaay bi ñu taxaw waaw keroog juum naa ne mais presse bi xam nañ ñu may wax parce que loo gis am na ñuy def am ñu deful mais maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw di sant yàlla jàmm yàgg. kontaan si. maa ngi nangu ziar. perte ñëwaat nga est arène nationale de astafurlah ñëwoon nga fi bii passé mois de janvier tey mois de juillet nga fi ñëwaat est ce que ñëwee nii benn la. non ñëwee nii du benn. lan moo def différence bi. waaw parce que ñaari combat yi bokkul. lu leen wutale. ndax combat bi ñëpp xam nañ ne euh, combat roi des arènes la donc mooy combat bi gën a mag ci combat yi donc tey bu fekkee ñëw nañ fii cela veut dire que tey moo bële mënul nekk benn. mais tey daa am benn taxaw seetlu bu ma def combat bee ak combat bi tey dama xaw a gis ni dal ci seen côté lu xew daa am lu ngeen di ragal wala. dafa am. dama xaw a seetlu lu mel ni dal ci seen côté tey par rapport ak combat bi ngeen bi ngeen fi ñëwoon janvier. waaw mais combat loolu la laaj combat même bu ñu defoon euh, laneen erreur la combat moom dal rek la laaj ndax li sport la lépp loo ciy def rek da nga ko war a def si teg ak tey. Eumeu Sène yéen ak yéen moom ku gën a pare actuellement. non ñëpp pare ma pare na ñun pare nañ. est-ce que mën ngeen ko daan comme ni ngeen ko daanoon 2014. loolu moom euh, mbirum yàlla la ñun euh, yaakaar naa ne ku ñu mënul daan ci làmb ji amul. mën nañ nag euh, def faux pas waaye nag ku ñu mënul daan amul léegi daal li ñu kii rek mooy xaar li yàlla dogal. 1 wala 2 0. ah ñu ne 2 2 0 lañ bëgg waaw. incha allah. Talla Modou génn na oto bi de. Modou génn na oto bi de. mu ngoog ngeen koy séen de. ay lay la laa borom parcelle 1 ba 26. moo doo ngi taxaw am na lu ko sa di defal laa ilaha illallah masila ngongu taxaw ak moom taala moo doo ngi ci buntu géew bi bëgg a dugg masila ngi wax ak ñoom moo du dugg na moo doog perkaal bi lii lan la taala njaay am na lu ñu yore benn ah lii doy na waar hee saala aw maa ngi seen Dramé Sitor ak Babacar ak docteur Remo waar taay si ngaa ngi nii waarok ene seengi ne la ci digg yow ba police yi xaajale leen lii mooy jàmm fi am xam nga sàkket lii moo dew sàkket doo dugg sama kër duma dugg sa kër Taala Taala Njaay kenn du du kër ah, alors jàmbaar nu mu demee naa. naka mu waaye sant yàlla ak yéen a. aminte seen digganteeg ak si daan la métti de. non mënut a métti Modou Lo parewul. lu tax parewul. barke Alxuraan Karim parewul ko teg barke Alxuraan Karim. kon entraîné wul. déggoo li ma la wax entraîné wul parewul. maa ko doole kon. déggoo li ma la wax. barke Alxuraan Karim billaay wallaay Modou Lo parewul la moo tax ma ne parewul dafa am fu leer fu ma ko teg. foo ko ndax parce que daf ma woo du ma corrompu pour ma jaay ama sen ah yow mi li nga wax doyul waa. waaw yow doo ma dimbali moom moo ko def. bari man kay du ma la dimbali yow kay yaay wax. dama la wax loo am kii parewul. kañ la la woo kon kon combat si gàllaaj la ko teg. man 100 pour cent Pikine laa man yooyu du ma ko dund déggoo li ma la wax de man 100 pour cent góor laay doon ba xëy dee moom waaye xam na Demba Solo moo ma woo man lijjantiwu ma leen kii bu si kanam tuuti lay xam ne lépp dëgg la am na seen man fu ko mu. Massi loo waxoon. ndam rek incha allah. ndam li daa leer wala. bu soobee tabaaraka wa taala. nu ndam liy demee. daan rek bu neexee yàlla ak nu ko yàlla joxe. maa la ko wax lan moo tax tey Balla Gaye tey Modou Lo. Modou laa bokkal deret. ñibbi naa sama gox loolu laa la waxan. li ma la waxan jóguma ci. bu soobee Mawlana lu ma ci góobe gar ñibbi sama gox. waaye ñoo ci kawam rek. yaram yi ñoo tàng co Sénégalais yi ñoo jëlu avance bi. kon faa ñu dem jaante koog Mali yooyu. waaw noonu la fa demee. non amul ordinateur. oui. yaa ko waa kan la tey. Bisaaw. waaw. may leen ñu ko bokk. eh way. taala xoolal. koy bëreel yow. man Niger laay bëreel. Niger. waaw ah yow lu saf nga am de daa mel. waaw loolu la gars yi def mais dara yàgg nañ bëri ak ñoom. da nga ciy génn. incha allah rabbi. kontaan si waaw waaw bëgg si yow gëj a gisee leen may ko ndam lu set wicc ndax sama combat bi passé ba ma daanee damaa toog plateau nga dékk ma micro bi ma wax si moom tamit lu rafet di ñaanal tamit Babacar Bale sama seex man ak moom deux jours lañ rawantee dafa juddu tay man ma juddu suba di nga ñaanal yàlla may ko ndam tamit di ñaanal mbëru Pikine yëpp ñu am est-ce que ama na cee génn tey ama da siy génn gaay ama da siy génn bari sëñ Bamba da siy génn billaay ama seen toll na foo xam ne si làmb te tollatul foo xam ne ni si làmb tollatul foo xam ne si làmb fu muy waye dee bañ koy jàpp. taala seen naa laay njombor laay njombor nga nelaw may seen taala taala laay njombor a ngee moo gàddu saag ba lab laay caam ko laay njombor équipe nationale laa ilaaha la dëkk nangaan la jóge laay lamb ju yéeme ngi waa anooma seen xool paa xoolal ma kii waa ji làmb waay kit kit kit kit kit kit général waaw dafa leer Babacar ci loo ne sant yàlla rek waa lamb daa mel ne namu nañ la waaw namu nañ ma trop moo tax tey wàcc si naa tey koy bëreel benn mbëru Gambia bu ñuy wax orobase na ko xam naa ko bu baax parce que ngeen daje ci mbapat nañ daje ci mbapat yi ku ëpp benn benn la ah kon am nga combat tey. am naa combat waaw mais yàlla damay suturaal ci kattan suñu borom di ñaan yàlla ma yàlla suturaal waaw noonu la demee. jaajëf Babacar. Eh, fay nañ la. yow koy bëreel tey. ah Alla bu Alla deux bu Lamsaar. Alla Gueye deux bu Lamsaar. bu Lamsaar waaw. yow bëri door ngay bëri de. Talla Lambi naxante. Père Dugo la ngoongu toog Pape Diop Boston. ak ki nga xam ne nii moo di Baba Diallo xool leen niñ toogee nag Cheikh Niang laay seen kaay. moom gis naa ko léegi moom yaram wee tàng waaye daal ñu ngi toog ci rox bi tonton ñu ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. mbaa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah tubaarkàlla. temps yi dama gis beneen décision bu bu bu gën a dëgër Pikine maanaam ñëppay jógandoo kenn du des. tey ngeen jóg na ci ginnaaw roi des arènes. waa loolu mooy dëgg bu suñuy doom ak suñuy jabar jógee ñu jóg rek topp ci wax leen li nga xam ne mooy ne yar ak teggin rek ndax fi mu ne nii kenn dootu leen a daan Modou Lo tey. loolu yàllaa ko xam nag nan bàyyi ba ca kanam rek. ah si côté liggéey bi laay wax entraînement bi. Eh, côté bi kay boo see ma seen xam ne liggéey na loolu kay moom gënuñu la koo xam ndax yaa ngi koy xool. kon ëllëg lay doon tey su ma la déggee. waaw li ma ci mën a wax daal mooy duggagun ci géew bi rek waaw. kontaan si ngongu ndaa ndeysaan taala waa Pikine ngi nii ama ngongu ñëw ama seen ci beem bi e ndooye ngongu ab oto ngi ni yor kaafuk picc taala cey loolu maa ngi lay bëgge bëgge naa la fii la pee sama xarit Babacar am nga jàmm sant yàlla bu baax li nga yor nii lan la waaw lii ay ay kii la rek ay bagage la rek. yaa jël mburu mi noonu. taala mburoo ngoog. ba. sant yàlla rek lu ñu war a def lépp def nañ ko 2009 laa dugg si làmb di topp jëmm jëla di Balla Gaye numéro baa boo ñëw tey noo mel nii tey. tey tey su suma waajur moom a ngemb tey sama yaay mosul dugg si làmb. tey 1-1 la. non. loolu kenn waxatu ko borom mbaar bi lañu xaar mu may ñu ndam. ko yaam yu suma jigéen mu baygee baayu faalu lay woo chéri maam njaay ku way yuusu way laa mbaygee yàq nduroo yuusu nduur dara woo naa la yaama doy fay ñii doo seen maroome jur jël ko la sol mu ngay am na lu ko may xoole waaye moo am na lu ñu yor jëm ci moom taala am na lu ñu yor ci moom am na nu mu koy joxoñ waaye daje ba ci kéew ba waay daje ñu ngay wax moo doo ngay moom moo doo ngay moom amay re nga ko topp rek taala ëmmaa nga jiitu Modou topp ko Modou ngay sotte ko sotte ko ngay sànni picc ya kaaf ga picc yaa ngay naaw picc ya naaw nañu ay taala njaay picc ya tasaaroo nañu xaw ma fu ñuy fanaani tey maa ngay dem mu ngay dem ñu ngay dóor papis papis mu ngi koy ngay xeex xeex ñu ngay xeex taala ñu ngay xeex laa ilaha illallah waxoon naa la dinañu jote de xeex am na de xeex la ñuy de laa ilaha illallah ji lamb eh mag yi Eumeu Sène ak Papis Papa Ngom ak Papis laa ilaha illallah eh ji lamb xoolal loolu maa du ñu am kuñ ñu ngay xeex de jëlal lii Modou Lo picc ya eh ñu ngi gaañante dinañ gaañante taala jëlal ñu nga ca de xeex ba tar de la ilaha illallah sikare sa à droite Babacar Balde à gauche Balde doo musul Balde la ñam nañu ko ñu ngay dóorante el eh, droite yaa ngay dem da koy jël ko da jaay doole wala Max sikare sa bañ na Max ak Babacar Balde Max sikare sa Balde ñu ngay dóor Babacar eh loola ngay dal dugal génne waaw waaw Max sikare sa ku jël décision Babacar doomi sil Balde doomi sil la takk na ko Babacar mbaa duñ la mboot waaye doole mbaa du ca feeñ Talla Ndiaye takk na ko wañ su kër bi Babacar daanu na Babacar daanu na waaye moo doon daan far daanu eh Talla Ndiaye daan nañu doomi sil Balde ja moo doon daan far daanu da doon wañ far wi ñar ci ku daanu taara wañ wi ñar mas ngaa wañ daa wañ wi ñar Thank you. làmb foofu la toll fu mu nekk nii. lii góorgóor dañ la war a jàpp soutenir la. Talla soqan na ca pax ma. ñu ma. ay soq waay. soq waay. xoolal booy ñaa. ee eh, Pikine waayaa ngongu waa Pikine nangoo taal taala sa sumbi taala xool supporter yi xool supporter yi Aziz a ngoomu toog lan Aziz xanaa Aziz léegi àllaaji lay nuróol kaay ñu yëg ma xool Aziz yaa ngi toog di seetaan toog di di use combat bi enjoy combat bi di enjoy enjoy di ko bëggee quoi di seetaan. yaa ko gisee. ah ku nekk mën na daan rek toog di xaar arbitre bi soufflé rek <laughs> waaw. laa bëgg waaw bëre moom laa bëgg ki nga wax noonu waaw ki nga tuddagum ba tuddee keneen tamit ma waxaat la rek <laughs> waaw bëggee ne tey da ngaa sensé habillement de. waaw mais tey noonu la dama ànd sama gars yi rek ñëw seetaan si yaa ma gën a xam. tey noo gisee làmb ji. comme dañoo ne ci tàngaay ñu ne nañ edeewu rek. waaw non làmb ju neex lay ku ci ne kii dafay bëgg a téye bi kii bëgg couronne bi kon yaakaar bu neex nañ ko gis incha allah. làmb démb ji nga tëggoon noo ko gisee. waaw non am mbégte rek Babacar am mbégte bu baax a baax ndax boo ñëwee fii xool démb li am rek nga xam ne da ngay am bu baax a baax xam ne tamit vraiment lamb ja na mu waan a mel rek la mel te it ñun promoteurs yi li may wax gars yi suñu suñu wareef mooy xool cinq grands combats ñu tëgg ko li ci des nag Babacar liggéeyu mbëri la te gis nañu seen liggéey daa des waaw. maa ngi si jàmm bu baax. am nga jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax. yaa ngi toog di seetaan. waaw waaw tey dama ñëw bu seetaan sama mbër Modou Lo. kan mooy sa mbër yow ci ñaar ñi. Modou Lo. Modou Lo ngay supporté. waaw waaw. waaw neex na trop. waa ndeysaan Talla Ndiaye ñu ngi leen di passé visite tey le dimanche 28 juillet 2019 et eh, heure bii daaw la fi amal seen bëreew nag Bombardier 28 juillet 2018 jël couronne roi des arènes bi tey le premier génn mu koy jongante ak Modou Lo boo xam ne daanoon na ko 2014 kon Talla Ndiaye lii combat ah, ndeysaan laa ko. ndeysaan mu mel ni ñaari mbër yaa ngoogu ci géew bi léegi waxoon naa leen ne wàllu teen la billaay boo ñëwee ci pind bi ngay taxaw waaye bu leen ko fàtte te bañ koo jaawale yéen ñi di bëree. drapeau Youssou Ndour ngeen di bëree artiste international toj na fu ne ci àddina bi ci way tax tey Moustapha Diop dañoo ko njukkal kon ne ñu ko ñuy suivre ci Leewtoo TV à travers le monde duñu fàtte kenn suñu soppe yi waaye ana Babacar Diop waa ndeysaan borom mouvement bi jàppal ma jàpp doomu ndeyu Karim Wade borom oto yi ca New York Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu sama maire commune maître Pape Sène waa ndeysaan président comité Sénégal des droits de l'homme sama xarit sama mag faw ma nuyu ko mooy maire commune Ndondol muy nuyu waa Ndondol waa ak yaay sama dëkk nuyu naa ñëpp ziar ñëpp ñaan ñëpp jàmm ni ngay seet mbër laa ilaha illallah ee Taala Njaay Taala Njaay ñaari mbër yaa ngoog ñu leen di seet wala ñuy wax ak ñoom Malick ay arbitre bari jàmm laa ko tudde Malick Ngom ama seen wane ginnaaw Modou Lo ngeen jàkkaarlool Modou ama kabar na bu kenn jaawale lii sama yaay Penda Diawara nuyu naa la ca Sacré Cœur arño suuf la ne ñu ngay lewaatoo der moo loo ndax da ngay njeexaat fa farab dan doo la fa sab loxo wala ama dang ko naan lu sax wala kun ci diw ko da koy fay tey nañu yónni yàgg te bàyyi ko xool lu muy andil ñaara ngi ñaari bërekat ku ne na jàkk sa morom Modou pied gauche fausse maanaam garde normal ama pied droit fausse garde ñuy lewaatoo Modou Lo buñ fiy mujj defet waaw Balla Gaye dee ko fi daan moom Modou bëri na Léopold ñaari yoon ak Lac de am fi ndam benn ak Balla Gaye mu ñàkk ëmb seen bëri fi benn gagné fi la gagné roi des arènes ñu ngi nii ci Leewtoo TV Talla Ndiaye la nii ak Babacar mais Talla jàppal na yàlla ji taw na dugub ji day sax gerte gi sax nawetu jàmm Talla du mën a ñàkk mbottu yi ngoog. jalaar yi génn naar bët yi dox gunuur yi naaw lépp ci nawet taala waaw waaw daje leen yéen a ngi déglante de roi ak rok parcelle Pikine roi ak rok rok ak roi rok des Parcelles Assainies le roi des arènes ana waa Pikine seen doom a ngi marché syndicat marché seng marché savenel du Pikine la nekkam bi yoon bi bi yoon Modou Lo dafa mel dafa tey. waa tey daa baax nag. waaw bi yoon dafa mel dafa tey taamu nañ ko ci ndox waaye xam nga ni ci nit la gënam. tey de mi ngi ne tekk Babacar. tekk gën ba gis fa nga war a dem nga doog faa. loolooy affaire bi am na ci. muy it a ngi ne tekk boo ne tekk tekk wan la aw yoon fa ngay aw loxo jógagul ku dalagul dara xewagul. ama tey accéléré gul de boo xoolee Modou dafa xaw a dër Modou xaw a taxaw ca a taxaw ca kaw yee Modou Lo bu Parcelles Assainies unité 1 ba 26 ñu ngay gëddante de ñu ngay de Ama xob na ko ana Ibou Laye mu nga ca ginnaaw toog ana Djibi Seck la njang ñu ngi ca ginnaaw toog waxoon naa leen kon noonu naa leen wàllu teen la. bu arbitre bi soufflé ngeen di wàcc ca ginnaaw xaar yéen du mën a ñàkk dafa ñu ngi nuyu naa ko ca mariste doomu nday Waly Ballago Seck dafa ñu ngi moom doomi Pikine la maa ngi koy nuyu Talla waaye kenn du Serigne Ndiour tey li ma sol ci Real Madrid moom fa génne Talla Talla xam nga ne li ma Serigne Ndiour jox rafet na. non original nga sol. ca bitiki Madrid la ko jëlee. original nga sol baax kenn du Serigne Ndiour maa ngi koy nuyu ca Italie. fii ci yow rek laa ko gis fii Sénégal la ko boole Lamine la jox rivel pour man mu jox ma Real sama équipe bu mag ba. waroon na maa jox benn nag. non yow da am yow jox naa la juif. Ah. looy waxati waaw ah, ah, <laughs> kon del fàttaliku. damaa fàtte àndal sa xel. del xelu day ànd ak sa xel. waaye ñaar ñi daal ñu nga ca ci Leewtoo TV dara xewagul de dégluwante rek samp leen tànk yi ñeme jaaga waaw suul tànk yi jam jam yi jóg waa États-Unis nuyu nañ leen waa France Baye Sall ca Paris eh waa Italie ñoom Fatma Fall ñoom Ndongo Fall ñoom Mbacke Kebe ca Italie ana waa Norvège ñoom da baax maa ngi leen waa Dubaay maa ngi leen di nuyu door na ko góos ëmm fayu ji waaye jotu ko Modou génn ëmm da ko Modou da ko ñam góos ah loxo yaa ngay commencé jóg droite ak góos yaa ngay rombante de loolu mbaam saxee moytu leen de tamp kuñ ci dóor ëmm xob na ko de ferme la pataake ga seere am na kuy wax taxi ca ginnaaw de bu zone la wala bu noir taxi bi fu mu jógee parcelle wala Pikine Abdou Ba xumay sot de mooy manaseeru Ama Baldé taxi de man li ma ci xamoon buy daw Ndakaaru yëpp client ah ay code la de waa Pikine lañu de xam nga lamb da am soxlu nag lamb faw soxlu am ci ah nañ ko déggoo kon ah gisoo fi taxi xanaa taxi ma lee fi nekkoon mu loolu li mu ngeen moo kii sarba noir ëmma sol ngeen mu weex moom ëppan ngeen presse waxante ngeen léegi nag jëflante leen moo ci des de waa fi ne nii daal moom fi mu nekk nii lay day jeex Moustapha Diop wàccoo na ak yéen ndax fay na leen bëre leen xam naa nag ku daanu moom dana metti ci yow Balla Gaye de de noonu na ma combat am dana metti lay doon noonu na ma Modou xeexam moo gën a jub waaye ama seen der la. Balla daf na ñoom la yërëm. waaw dañoo jar a yërëm di. waaw Balla loolu la wax. ah roi nga yor ko di ci génn sa génn bu njëkk di daje koo xam ne danaa daanoon Talla Ndiaye loolu daa dis boobu yan Modou Lo bi muy mujj fii dafa la fi jëlee. dama lay jaay jant mu ci baax ma génneel ma gis boo xoolee seen taxawaay moo tax combat bi Eumeu dafay faral moo tax bëre bi nu mën a gaaw. ñaari mbër yaa nga ca de waa parcelle da xanaa ñu ngi ne teg di déglu seetaan Pikine itam ñu ngi ne teg di déglu seetaan xanaa lamb ji waree su way ana Samba yaa ne ngaan doole yu laale baaxu góor la nañu laale. waaw waaw ëmma ngay gëdd de Modou jam góos ëmma daa bëgg dem de waaye Modou góos lay jam Modou yëpp góos la koy jam di dox ëmma laaw na Modou eh dóori ko mu daanu laa ilaaha illallah eh Talla Ndiaye Modou Lo dóor na di percute ba Talla Talla Ndiaye Eumeu Sène mënta jóg Eumeu Sène mënta jóg eh Talla Ndiaye ay Modou Lo xoolal supporter yi Talla Ndiaye. mbokk yi ñu sifir ci Leewtoo TV ñu nga commencé woon ak yéen ci samedi ci ci arène nationale teere si stade Léopold Sédar Senghor doomu yaay ñilaan drapeau Youssou Ndour lañ doon bëre le roi di mbalax kan moo ko gagné Modou Lo mooy roi des arènes actuellement. 28 juillet 2019 yàlla def na ko lool ci kaw kan la ko jëlee Eumeu seen mi nekkoon roi des arènes léegi looloo fi amoon combat bi nag taala li ma ci mën a wax mooy la ma wax rek mooy Modou Lo pied gauche lay jiital muy garde normal Eumeu Sène fausse garde la muy pied droit léegi Modou bi ñëwee dafa tëj bëre bi xañ Eumeu Eumeu lépp Eumeu nag wuti pexe amu ko mu laaw te bu laawee droitu Modou day day libre pour mën ko dora hyperkit boo xoolee dafa laaw Modou def rotation génn am ko ñaari hyperkit Eumeu dëpp kon jël bi mu ko daan kenn du ne satul kenn du ne leerul kon di courage Eumeu Sène félicitation Modou Lo lamb moom nii la rek waaye taala kenn du Serigne Ndiour borom Real Madrid moo ko jënd ca boutique Real ba yónnee ma ko xaalis bari la ci def Serigne Ndiour maa ngi lay bëggee waa ndeysaan numéro 10 la ma takkal taala jëlal lii lii daa jara wax xani fay waa da ciy bokk voilà numéro 10 yaa ngi nii les 10 de l'arène wax nga dëgg